foo tudde laylatul xadar ci réew mi xel yépp dem ci soxna may fii saw mi bokki jullit yi bokki taalibe yi bu ngeen jàkkaarloo waatee ak jataay bii xel yépp danañ demaat ci bis ba nga xam ne moom la caatum Serigne Touba Xaadim Rasul ma doonoon taalibeem ba daan woote di soxna may moom Serigne Touba Xaadim Rasul bis boobu nag moo dëgg malaat war a nekk ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru koor di guddik ñaar fukki fan ya ak juróom dëppoo ak fan fanweeri fan ci weeru tubaab wii ñu nekk moo tax ñu toog dend ak ki nga xam ne mooy jëwriñu kër gi tey jii di sëriñ max Mahfous moom soxna May yal na ko fi yàlla yàggal lool te dolli ak wéram waaye mu feggoo ak njabootam di sëriñ Cheikh Abdou Lahad moom soxna Maam Boussa ma nga xam ne moo ko daan taxawee yal yàlla dolli ay leeram waaye mu feggoo njaboot gi yëpp nag ñu fas yéene yëkkati ay kàddu ginnaaw bu ñu demee ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi di jëwriñu yoon wi ba mu joxe ci ndigal nag ñu jaaraat ci Serigne Abbas Mbacke borom Daarul Moxti jaar ci sëriñ Maam Thierno moom Serigne Cheikh Awa Balla fas yéene toog fii nag yëkkati ay kàddu ngir woote bis boobu bokki jullit yi ak fuñ mën a nekk mbokki taalibe yi ak fuñ mën a nekk maa ngi leen di nuyu bu baax ci turu ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo tege jataayu Cheikh Al mu wax ne na ñëw fii ànd ak Cheikh Mouhamadul Mahfouz mi toog ànd ci guddi gu sell gu teey gu baax googu yi nga xam ne moom la ñuy séenu te di ko barkeeloo ci liggéey boo xam ne soxna may muunatu maam Cheikhul Xadim moo ko tàmbali woon te di ko daan ko woote di ci wajulit ñëpp sëñ Muntaxa nag wax ne moom ngi ci dellu di sant yàlla bu baax di dellu di sant sëñ Tuubaa di sant soxna may muunatu itam ndax daf ko cëraloon ci bis bi lool jox ko ci wàccuwaay lool boo xam ne xam na ne baaxub soxna may rekk la moo taxoon mu def ko mu ne nag taxawaay boobu ak yitte jooju ak yéene jooju fas na yéene fii mu ngi dund di ko ànd ak Cheikh Mouhamadul Mahfous mi toog di ko ànd ak njaboot gi yëpp sëriñ bi nag wax na ne dafa bëgg mboolem taalibe yi mboolem jullit ni ñu ñëw ànd ko ak yow taxawu ko fekke ko dundal ko ni nga xam ne noonu la ko soxna may mun a bëggee woon ndax bëgg bëgg sëñ Tuubaa bëgg-bëggub doomu sëñ Tuubaa dafa war di jëm ci kanam waaye dara waru cee dellu gannaaw kon sëy bi ci turu boppam euh, mi ngi woo taalibe yëpp di woo jullit yëpp ngeen ñëw ci bis bii ànd ko ak Cheikh Mahamadou Mahfous ànd ko ak njaboot gi taxawu ko ba mu jeex mi ngi lay ñaanal itam sunu borom bàyyi la fi nga yàgg ko taxawee ànd ko ak wér ànd ak man te ànd ko ak mboolem njaboot gi. mboolem mbokk yi ñuy seetaan mu ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd wi di leen baal àq di leen baal àq dikkati na ay kàddu gàtt rek ci turu Cheikh Amadou Mahfous jëmale ko ci woote bi Laylatul Qadr bi nga xamante ne bii ren yi mi ngi dëppoo ak alxames 30 mai 2019. bu xalifa général des mourides wootee. te sunu borom dogal mu seqoon lu ne ak soxna si nekkoon jëriñu bis bi te yàlla def mu dem ma nekk Serigne Touba dikk joxe ndigal ci lépp yabal Serigne Kosso wooteel boppam foog naa koon xañ na dañuy baaxante rek waaye daanaka kàddu yi jëru ko woon. xam ne lépp lu ñu fa defee tamit ci ndigalam lañ koy defe di ci woon nag mbooleem bokk yëpp foog naa bu ñu xoolee jataay bi gis nañ niñ fi tooge Serigne Cheikh Bara Male Serigne Moustapha moo fi yabal mu ñëw ndax dañ ko tuddee Cheikh Mawlana sëñ Abdou Kodos mii tim moom itam ma nga jóge Daaru Muxti ci sëñ Abbas sëñ Sidi mii tim ma nga jóge Daaru Manaan ca nga xamante ne mooy Alaaji Maam Cerno kon ñi ngi woot ñi ngi woo mboole mbokk yi bàyyi kenn dañ ko daan defee ndax soxna si kat lépp lu mu ko daan def bokki la ko daa àndal sëriñ bi li mu daan faral di wax moo di ne moom ñàkkut bokk yi ñoo ñàkk fii mu toog itam dafay toog toogal leen fi kon lépp lu muy def itam ñoom la koy defal kon fas na yéene ànd ak ñoom li nga xam ne noonu la ko daa ànd ñoom ren jii nag dëppoo ak li nga xam ne mooy ñaar fukki at bi nga xam ne moom la moom la ko soxna si wuute dëppoo itam ak at mu njëkk bi nga xam ne moom la ko soxna Bali wute kon ñaar yooyu buñ ko boolee foog naa bis bi war nañ war naa mën a toll neneen loo xamante ne bii yeneen jéego bu sob yàlla moom lañ fas yéene mu seqiwaat ko moo tax fas ñu ko yéene ànd ak mboolem jullit yi mbooleem kër diine yi fenn fu ci nekk danañ fa dem wax ak ñoom invité nañ ñu xam ne kat bis bi bisu jullit yëpp ñoo ko bokk ñëw ñu ànd ko na nga xam ne dañ ko daan ànd mboolem waxtaan yi nga xam daanañ ko def itam moom itam danañ ko wéyal nañ ko daan defee danañ ko tàmbali bu koor gi doxee ab diir rek danañ ko dellu ci ci ci yeneen programme mboolem taalibi Sëriñ Tuubaa yëpp di mboolem seex si kenn ku ci nekk itam li nga xam ne mooy cër bi nga ci am te ñu tàmbaloon ko daaw am lu ñu ko tuddoon Cheikh Ibrahima Fall dañ ñu tudd ko Cheikh Sa jenn noonu lañ ko fas yéene wéyal ba ñi àndoon ak sëriñ bi ñëpp kenn ku nekk xam ne kat am nga ci cër ndax sëriñ ndax soxna si moom dafa jaboote woon ñëpp kon ñi ngi woon ñëpp fàttewu itam ki nga xamante ne bii mooy mooy jiite réew mi di président Macky Sall moom tam sëriñ mi ngi ko yëgal bis bi di ko ak mboolem ñu mu àndal ñëpp. noo ngi wax ci kàddu taalibe yi nuyu seen jëwriñ si mi jox nu baat nuy wax ak yéen sëñ bi li mu bëgg mooy taalibe yi fu taalibe maa nekk ci biir mi ak bitim réew. nga bàyyi loo jàppan wuyu si bis bi tedd bii di bisab soxna may mun a te mooy leelu du xadar ndax ba ko soo si ak léegi so sëñ Moodu mi doon jëwriñ ji ànd koog njaboot gi ànd koog bokk yi ànd koog taalibe yi nu mu daan doxee waxtu wane sëñ bi xam ne noonu lay doxee waaye soññee daa mënta ñàkk moo tax ñuy soññee ndax leelu du xadar moom kenn du ko fàtte sëñ bi nee mi ngi soññ président daayira yi di soññ jëwriñ tool àllarba yi seex yi nga xam ne ñooy seex yoon wi rawatina seex yi yaakaar sëñ Moodu Maxfos sëñ bi bëgg nag kenn ku ne boo ñëw nga xam ne fi nga jëm si ci ndigal ngay ñëw nga toog ba ñuy wele ci ndigal nga delluwaat ci ndigal waaye ku dikk na nga laxasaayu te liggéey te jàppale sëriñ bi ci gànni ak taalibe yi ak bokk yi ak bis bi ndax loolu mooy li sëriñ bi soxla ñi ngi leen di jotal kàddu yu bàyyi ko ci sëriñ bi muy ndigal jëme jóge ci Cheikh Mamadou Mahfous ndigal li nag ñi ngi ciy jëkk di soññi mooy jànkati alxuraan yi daaray kaamil ñi nga xam ni ndawul sëriñ bi ëgsi na fi ñoom ak ñi nga xam ne jotuñoo ëgsi fi ñoom kenn ku ci ne la nga ci man nanga ko ci def ndax soxna si bisi bi bi mu koy taxawal mi ngi ko taxawale ci tàmbale ko ci jàng alxuraan ak xasida ak lépp lu waaye man ci lu baax def ko ak bernde kon jàngkati alxuraan yi ak jàngkati xasida yi ñu ngi leen di soññi fi waaye mën a ne dañ ko fas yéene tàmbale ni ñu ko doon tàmbalee fas ko yéene lépp dajale ko def ko addiyee soxna si mu jëm ci addiyee jëmm ju tëj di seexu naa xat di muy way juróom yi mu doon liggéeyal kon loolu ñu ngi ci soñ ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen daayira yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi itam ñu ngi leen di soññi te sëñ Njaga Fall jiite leen fu fi daayira ne niñ daan taxawee ci bis bi nañ ñëw taxawee ko noonu ba ba liggéey bi mën a mat ñi dëkk ci gox bii ñu ne muy aslem ak ñi dëkk ci biir dëkk beeg soppeek ñëpp ñi ngi leen di woo soññe bi moom defe naa li fi kilifa yi wax mënatu na mënu su ta waxaat lu ko gën a kawe xanaa day ñun ñi nga xamante ne ñooy daayira taawunu alal biri wa taqwa bu Touba Sandaga euh, nun moom euh, ni ma ko daa waxee rek ñun li ñu war a jàpp mooy daayira yi ñëw yëpp ñun ñun ñoo leen war a dalal ndax soxna si euh, lettre bi mujjee bind daayira wa ta'awunu alal birri wa taqwa Touba Sandaga def na bis bii bisu Serigne Touba la te lu ci sëñ Touba def te lu ci def sëñ Touba lay fayal boppam kon maa ngi leen ciy soññaat kon loola moom saabu bu ne dañ koy war di teg sunu kanam rek kon ñoo ngi soññu kuréelu xasida bi nga xam ne ñooy fanaanee jàng ci buntu kër sëñ Fallou euh, muy daayira ta'awunu alal birri wa taqwa ak ñi nga xamante ne mooy daayira géejawaay bi ànd ak daayira Sandaga di taxawu liggéey bi fii ci asalem ak kër gu mag ñu ngi ñëpp. ñu ngi leen di nuyu ci turu di wax itam ci kàddu sëriñ Bass Abdou Khoudous mu boole ñoo ak doomam sëriñ Ahmadou Mbacke sëriñ Bass nee na sëriñ bi Abbas mi ngi woo ñëpp képp koo xam ne yaakaar nga borom daaru mi ngi lay woo ci bis bii guddi gi nga xam ne suñ borom da koo terale ummatul islamiya da ko terale yontu bi sallallahu alayhi wasallam terale ko uh, mboolem kuddib jullit te soxna si nga xam ne sunub sëriñ la di sunu waajur liggéey ci ba am ci ngërëmal yàlla am ci ngërëmal sëriñ Tuubaa am ci ngërëmal yontu bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi nee na mi ngi leen ci woo képp ku ci daan taxaw nga taxawee ca ci anam nga ci daan taxawee wala gu ko raw ndax bis bi day bis boo xam ne ki koy def am na ci lim ci bëggoon lépp te mbiri Sëriñ Tuubaa itam ni muy doxee mooy wa bi am si yun zini bi yow mi wa bi xat mooy loo xam ne toujours day dem waaye du du deltu ginnaaw ku ci jàpp itam sa bopp nga ci jàppale ba tax na Sëriñ Abbas ne ne mi ngi ciy woo ñëpp di ñaan ñëpp taxaw ci te xam ne kenn loo ci waaye def sa bopp nga ko ci defal lépp lu ci nit def itam moom nga ko ci defal ndax moo soxna May dañoo nekkoon ay kóllëleer lool ba tax na ñi mag ci ay doom yu jigéen defe naa ki mu tudde soxna may kenn ko ci mag muy soxna maam Penda soxna may ci topp moom la ko tudde sëñ Abbas tam yàgg cee taxaw ci bis bi ba tax na tey ji lii mu ñu sant dañu ko defloo bu ko mënoon moom ci boppam moo ñëw defal ko boppam mi ngi jox ndigal képp ku aju ci kër gi ak foo ci aju ak noo ci aju soññe bi mi ngi koy tàmbale ci jëwriñam sëñ Modou Maxtaar ak mboolam rakkam yëpp ngi leen soñ ci bis bi ñu jàpp ci bu baax a baax nañ daan def ñëw taxawu ko ànd ko ak sëriñ bi ci njëlbeen gi ci tàmbali bi ba ci gi di soññ waa daaru marnaan ak waa daaru xab ak waa daaru minam di soññee ci daara kaamil li nga xam ne nekk nañ ci dëkk yooyu ñu góorgóorlu ci njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi di woo taalibe ci fu mu a nekk lépp lu ci war a def na nga ko yokk te bu ko wàññi te góorgóorlu ci bu baax a baax te xam ne bisu suñ soxna may bintu euh, bintu xaadim rasul bisu sëñ Cheikh bala la bisu jullit ñëpp la bisu murit yëpp la fu murit nekk daal ci senegal ak bitim réew mu ngi lay ñaan na nga jàpp ci bis bi na nga ca mën a na nga ci jàpp te góorgóorlu ci bu baax a baax rawatina taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi foofu daayira nekk te aju ci kër gi ak noo ci ajoo rek mi ngi lay ñaan te jox na la ndigal nga jàpp ci bis bi la daan def nañ ci gën a góorgóorlu dëkk yooyu ñu lim léegi muy daaru marnaan ak daaru ak daaru minam nga xam ne fa la bis bi soso woon mi ngi leen di soññ bu baax a baax ci taxawaay bi maa ngi soññ sama rak yi nga xam ne ñoom laa bokkal sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Awa Balla maa ngi leen di ñoom ñëpp sëñ Amadou Makhtar sëñ Xalil moom sëñ Amadou Makhtar moom sëñ Amadou Makhtar ak Baye Cheikh moom suñu doom fas ak mboolem ay rakam ak sëñ Ahmadou Ateex maa koy soññi ak sëñ Thierno Mara ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn góor ñi ak jigéen ñi. dañ daan def nañ ñëw teel a ñëw ci ànd ak sëriñ bi ànd ak Cheikh Abdou ak ak euh, Baye Cheikh ak seen rak nañ leen daan jàppale ci bis bi ñu def ko nekk fii euh, talaata àllarba alxames ajjuma ba samedi ñu door a yewi ko. teew fi nag teewal fi sëriñ Moustapha euh, bu Cheikh Sidi Moukhtar ci ci xalifa Guy Mbind bis bii. dañu koo jël tudde ko sëriñ Bara te diggante Serigne Bara ak maam Thierno yam ca ngay tàmbalee muy diggante bu yàgg bu rafet nga xam ne eh, kóolute ga ñoo amoon ci moom ba wàcc kook moom lam ca def adduna sépp teg na ci seen bët bis bi nag di bis bu rëy ku ñu ku bis bu toll nii ku ko jël tudde ko nit rek am na foo ko teg am na loo ko yéene ndax bis boo xam ne genn guddi goo xam ne moo gën junni weer sunu borom wax ko ci alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa itam wax ni guddi gi ku ko màggal ci na ko war a màggale des na la jéggal sëriñ Tuubaa itam wax ci wax yu baree bari eh, soxna may ñëw tànn guddi googu yàlla dogal itam mu làqu ñu di ko ñaanal di ko ñaanal ci guddi googu kon guddi googu bu ñu ko jëlee tuddee ko sëñ Baara mën nañu lu sëñ Baara eh, eh, leble woon ci ci njaboot gi fay nañ ko ko tey jii. ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax te sëñ Moustapha di woo mboolem ko yaakaar sëñ Baara ngir mu teew ci bis bii ndax bis bii kat dundal ak bokk ngeen feeñalaat ci biir te ak bokk li ci sunu borom wax ci alxuraan moo ko waxal boppam te bokk gii fa mu jóge daa sori te dara ñaawu ca ba egsi ci yéen waaye man nañ ne bu doon tabax boo xam ne dañu ko tabax ba mu yegg yéen peinture ngeen ko couleur ngeen ko meubale ngeen ko. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi tàmbalee kàddu yi kàddu yi ak kàddu yi cant kàddu yi siyaara ci weeru tedd bii nu nekk di chahru ramadan al mubarak di chahru rida war rahma di weeru ngërëm di weeru yërmande lu di ci siyaara kilifa yu tedd yi nekk ci sunu kanam yëpp di ko tàmbalee ci sëriñ Touba di sunu sëriñ di sunu kilifa di a cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu a cheikh Mouhamadul Bachir di ko sant bu baax ndax ni ma ko baaxoo di waxe lu jiitu muy nekk xalifa sëriñ Mouhamadul bashir jiitu muy nekk xalifa a cheikh Ahmadul Xadim soxna si dama daan jox ndigal ne waxtu weeru tero bala nga caa dox ab jéegu mbaa nga wax ca na nga sama doom ju tedd ji ak Cheikh Mouhamadul taxa laaj ko ci ndigal laaj ko ci xalaat bu noonu lañ ko baaxoo defee ba yàlla def tey mu Serigne Touba yàlla def ba ma fa demee it démb xamal ko ne ko kat damaa dikkoon ngir weer wi teru na te baatum ndigal rek naka jekk ci la kër gi tëngu boo nu sante nu wéyal liggéey bi nu def ko leneen ndigal loo nu joxit nu def ko mu ne ma yeesalaat naa ndigal yi ma doon yi ma leen doon jox yi la doon jox taxawaay boo ca doon taxaw yaa njaboot gi na ngeen ko def te léppit maag yéen yéen a koy ànd ma jóg ko fa dem ci sunu waajur wu tedd ba di sëñ Abbas mi fi nekkal borom Daaru Muxti naka noonu sàkku ci moom ndigal sàkku ci moom ay ñaan mu yaasalaan ndigal yi ñaanal nu ci feddalu nu ci bu baax kon na ngeen xam ne noonu ku soxna si doon doxale doon ko taxawee bis bi lépp it mu jublu ci lu mu ca jëlee mu bokk ko bokki taalibe yi bokki boppam yi ak bokki jullit yi léegi boobu rek lañ ko jéem a wéyalal incha allah. at mi nga xamante ne ci la sanc fii nu nekk di kër laylatul xadar yàlla def ci suba ga ak cheikh saalihu xaysi bi ca gannaaw tàkkusaan ga ak cheikh mamadou mourtada ridwanullahi alayhima wa nafaana bi barakatihima ca la daal di waxe ne ah liggéey bi may liggéey sëñ tubaa de naa yaqin biir na ma ne sëñ tubaa nangu na ko ren ji nag muy guddi goo xam ne yàlla def na sunu mag ju tedd ja di sunu lépp ku ne xam sama diggante moom di jaaratullahi Mariama soxna Maam su Mbàkke ci la sunu borom wàcc ab liggéeyam ci màggal gi ba tax na kon ni ma ko defee ci bataaxal yi ma def jëmale ci mbooleem daari kaamil yi maa ngi sàkku ci moom lu ci waay jàng ci alxuraan nga def ko addiya ju bàyyi ko ci soxna Maam Mbàkke jëm ci Sëriñ Tuubaa defal ko addi soxna Maymuna Mbàkke ak addi jaaratullahi soxna Mariam Maam Busu Mbàkke nga xam ne nag jekk noo daan ànd liggéey bi mosunoo tàggoo ci guddi mosunoo tàggoo ci bëccëg dara mosu ko ñor lu may liggéeyal waajur mu tedd wa teg naa lépp ci loxol sunu doom ji di Cheikh Abdoul Ahad li nga xam ne mooy taawu kër gi mag ci njabootu soxna May tax na sunu xel gënnaante naa daal ci moom bu baax fa tabaarakallaahu te yoonu sëñ Tuubaa amul tànki gannaaw tànki kanam la am te njaboot gépp mooy seen mag moo nekk ci seen kanam ba tax na li ñu koy ñaanal mooy sunu borom yàggal ko fi may ko ndimbal taw feex ba ëllëg loolu yi tubaab bi tuddee la relève mën koo jël ndax ñun ñëpp ay mag lañu rek eh, di ko yëgal bokki taalibe yëpp itam ak seex yëpp ak bokki jullit yëpp nga xam ne bisu daal ñëpp noo ko bokk di ñaan sunu borom def nu ndimbal taw feex ba nu daje ci ngërëmul sëñ Tuubaa daje ci ngërëmul soxna may mun a Mbàkke te lépp luñ ciy taataan lépp luñ ciy sàkku ci àdduna ak ci alaaxira sunu borom boole na ko ak bokki taalibe yëpp boole na ko ak bokki jurit yëpp. muy kàddu yoo xam ne ci la ñuy woote bis bii nga xam ne moom la soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim daan woote fii ci Touba ren jii mu war a nekk alxemes ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru koor wi dëppoo ak fanweeri fan ci weeru tubaab seriñ bi nag di ko wootee noonu mu ko waxee fii ci kërug laylatul xadar gii ci asalem waaye ak kër gu mag ca tu ja jumaa ja lépp ñu àndandoo ko di ci soññ nag mbooleem daayira laylatul xadri fu ab daayira mën a ne ñu xam ne sëriñ bi nee na dara du soppi ko ci doxin wa nañ ko daan doxe rek lañ koy doxe incha allahu rabbi fukki fan ci weeru koor wi incha allah a siyaare si mën ngaa kon nag ngi soññ ñëpp ci sant ñëpp nag di ñaan képp ku fa teewit yal na yàlla sa aajo ci dara képp dara ci sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di lépp dañ koo jagleeg Cheikh Mouhamadou Lamine Baara kon ñu sant bu baax ci taxawaayub sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo fi toog di sëriñ Sidi Muxtaar waaye di sëriñ Baara te yebal fi sëriñ Cheikh Baara Laat ñuy xam le ne conférence bi nam ko daan nam daan amee rek na lay amee cérémonie bi bisub laylatul xadar lay doon ci guddi gi allahu rabbi fii ci kërug asalam gi kon ñu ngi ciy séentu ñëpp di ñaan ku fi teew yal na yàlla faj sa aju ci barke Seex Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi